قال الشيخ العلامة سيدي محمد بن محمد بن الحسن بن عبد الله الشناوي الفاسي التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في إتحاف الخل الوفي بشرح ألفاظ الحزب السيفي بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه قال الإمام القشيري في كتابه التحبير فمن علم أنه حي أبدا علم أنه لا يجوز فناؤه وهلاكه وإن طال بقاؤه وملكه <coughs> إلى آخرهم كون تي جوتاي بي ويس في نيامون موي تي معنا تور بروم سبحانه وتعالى الحي ندخ بي بروم سبحانه وتعالى الحي الحي القيوم القادر المقتدر القهار الذي لا اله الا انت ا كون voilà ci defoon nañ benn xeetu kii ci shuhada yi mm. ndax euh, tur boobu borom subhaanahu wa taala maanaam le fait mu nekk kii dund maanaam mooy xam ne moom dundam amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem te euh, dund gu sax la ba lépp luy dund tamit ci dundam la jëlee ak dund euh, dégg nga mooy kon ki nga xamante ne dafa du dee te dafa sax ca azal ba ca abat boo wax ni cëru jaam bi maanaam loolu mooy ci côté incarnation maanaam ni muy incarné tur boobu moom mooy muy teewlu tout le temps ci xolam di mébét maanaam bokk ci suhadaa yi maanaam bokk ci martyr yi ndax lan ndax martyr du dee en fait martyr bu boo xoolee borom subhaanahu wa li muy def xam nga yent yi alayhi salaatu wasalaam euh, seen tur day am sens xam nga ñeneen ñi ci des léegi la nga gis ci koo xamante ne ci ñeneen ñi day yor benn tur mais du incarne tur bi mais bu dee yeneen yi la ak wàllu yu mag yi ñoom seen tur tout le temps dañ koy incarne c'est-à-dire que ñu tudd tout le temps day nekk lu ñu incarne ci ñoom mm-hmm. euh, euh, moo tax nga gis yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad sallallahu alayhi mm-hmm. yor bi mu yoree tur yi gën a rafet muhammad ahmad sallallahu alayhi ak yeneen turi mu dajale li lépp en fait mu dajale lépp euh, léegi ci boobu bi ñu ci ñëw maanaam yent yàlla yaxya ala nabina alayhi salaatu wa salaam mooy mooy dana dund maanaam dund dund goo xamante ne maanaam verbe kii la euh, maanaam euh, présent continue continu mudaari'a maanaam Yaxya présent mais continu donc day dund mi ngi am instant bi mi ngi dund mais day continuer di dund c'est-à-dire que à chaque fois parce que présent looloo ko wutaleeg passé ak futur futur mooy léegi nii nekkagut mais dana nekk suba <coughs> passé mooy instant bi nii nekkatul mais nekkoon na alors que mudaari bi maanaam mooy présent continu bi mooy léegi nii instant T bi mi ngi nii mi ngi exister mais que day continuer di exister dans le présent c'est-à-dire que voilà loolu Yaxya forme boobu la yor euh, kon moom boo xoolee borom subhaanahu wa ta'ala dafa def dafa def le fait mu tudd noonu. incarnation boobu pour mu sax ci moom yàlla daf ko def may shahada maanaam da ko def martyr dañ ko rey en tant que martyr yi qui fait que en fait kon déewut de maanaam mu ngi dund voilà <laughs> maanaam léegi nag nga koy mébét nag moom lañ ngay moom ngay incarner tur boobu donc tur parce que tur yàlla yi benn bi da koy incarner dafa am phase côté incarnation mais am côté euh, taalluq mooy attachement maanaam sa xol ni muy ajoo ci tur bi léegi nag partie boobu lay war a dugg nii muy indi toxal waxu beneen imam ci wàllu boobu muy imam bu mag ci bunt boobu hmm? mu ne qaala wax na al imam imam bu mag boobu al Qushayri muy al imam Abul Qasim Abul Qasim al Qushayri rahmatullah fii kitaab yi ci téere boobu nga xam ne mooy at tahbir téere boobu rahmatullah mu ne fa man alima képp fa man képp koo xam ne alima xam ne annahu naka buur yàlla xayyun aji dund la abadan ba faw alima dana xam ne annahu li wër wóor mooy moom buur yàlla laa yajuuzu du dagat fana uhu akuk jeexam wa halaakuhu akuk alkam akuk maanaam halaak mooy mooy jeex rek mooy alku rek alku mooy en fait alku mooy périr maanaam mooy dem jeex see nekkatu voilà fana mooy extinction voilà kon loolu du mën a ne yàlla ku xam ku xam ne yàlla dafa day dund ba faw day xam akuk jeexam akuk jeex ñu jékki-jékki ne yàlla dee na n'est plus existe loolu am lu mënta ne voilà voilà c'est éteint Dieu c'est éteint loolu du mën a voilà Dieu est mort comme ni hmm? Hmm? hmm ni ko ñenn ñi doon waxe finalement ñom lañu wax né ñom ñoom mort voilà tout simplement voilà euh, dafa possible yàlla dee loolu mënul ne donc sa xol noonu lay ajoo ci tur boobu mooy mu nga toog xalaat xol sa xol jàpp fas ne maanaam tout le temps ngay am présence d'esprit que ni yàlla moom mu ngi dund wa intaala donte sax na baqaawuhu aku maanaam wa intaala donte yàgg na gudd na baqaawuhu aku saxabu mulkuhu ak nguuram maanaam lu nguur gi yàgg yàgg yàgg lu dund gi yàgg yàgg yàgg duñ lay du dee euh, li ci gën a yéeme mooy bon te loolu mooy li naturel en fait baatu gis nga laayee juzu fii du dagan la wax du boo ko ak dagan nag comme ni ñu koy waxee ci ci fiq ci fiq bu ñu nee dagan na mooy mën nga koo def bu la neexee nga def alors que fii bu ñu waxee dagan na mooy possibilité wu loolu am existé na. wala legui buñ né nangam du dagan moy contraire bi da kon dafa war manam moy dafa war wala manam moy contraire bi dafa war buñ né nangam dagalu maanaam loolu lañ wax mustahil mustahil moy lu impossible lu impossible lu mënta it wala wala alors que ja voilà ci ci ci buntu mom moy lu dagan wala deng kon kon euh, kon borom subhanahu wa taala nguuram gi li yag yag yàgg ak li sax sax sax yeb <coughs> tout le temps day exister te yàggaay bi du am ben effet ci existence am parce que tout simplement moom moo bind temps bi voilà et que kon temps bi amul effet ci moom mais moom moo nekk au-dessus même du temps parce que temps bi moom espace bi rek ko ko créé bu espace existé wu temps du am voilà hein, voilà géométrie de l'espace li nga hein kii bi. Eh, ki ordre kii coordonnées yi quoi. dañuy gis beneen bi ci des mooy temps bi. Mm-hmm. moom lañ ci yokk voilà parce que espace bi moo ko indi. Mm-hmm. voilà bu dul woon la en fait mu am ñu am fii jant bi am weer bi am et espace bi noonu et que affaire yi di yëngatu principe bu temps ci boppam moo dul exister. Mm-hmm. voilà donc loolu moo tax temps en temps ci jëmmi boppam ci côté boobu noonu. Euh, luy permettre nga mën a xàmmee situation mbir yi la ak ngay mën di localiser fee yi ak actes yi mais du du lu du lu du du benn entité bu indépendante moom kese ñu naan ab temps voilà existe na voilà ce qui veut bu fi espace bi nekk woon temps bi du fi am loolu ci gis ngeen ni kon maanaam euh, loolu tax ak sax sax googu loolu moom maanaam ñu bari mënuñu concevoir pré-éternité pouvez pas concevoir concevoir éternité c'est ce gën yom. parce que comme temps na pour concevoir éternité c'est gën a il est possible que à chaque fois que le temps existe nga y une seconde le temps bi mm-hmm. une seconde voilà et que si vous avez temps une seconde muy dem wala une minute wala donc loolu xel yi dina maanaam loolu moo gën a yomb ci xel mais li li xaw a gën a jafe mooy nga calculer prix électricité maanaam <laughs> voilà nga xalaat prix électricité nan la mën a exister or existence su pré éternité mooy wane existence su pré éternité aussi mais que soo comprendre ne en fait temps. du daal lu dul benn affaire bu ñëw tegu ci mbir yi maanaam benn affaire la boo xamante ne moom ci jëmmi boppam dafa sosu donc avant ñuy créer temps c'est c'est que li tax muy problématique ci xelu ñi ko comprendrewul d'ailleurs problématique la parce que en fait li tax muy problématique ci seen xel mooy le fait euh, comme temps dañ ko créer donc avant ñu créer temps li doon exister temps la wala du temps voilà alors que fofu li exister yalla la maanaam té yalla kon moom il est l'absolu dans son absoluité boobu <coughs> comme ni ñu ko gisoon ci yaakaar naa ci yaaxutal xaqaay xel lool voilà gisoon nañ ko que ni mom borom subhaanahu wa ta'aala lépp benn point rek la ci mom voilà depuis la pré-éternité jusqu'à l'éternité en fait ben temps benn en fait benn affaire kese la du ko ñun ñun ñoo koy gis en détail mais ci yàlla du détail benn affaire rek benn benn voilà cest à benn point kese la voilà. dégg nga kon waman alima képp tamit koo xamante ne xam na waman képp koo xam ne alima xam na annal maxluuqa naka mbindeef bi xayyun aji dund la. xayra waaye du kudd abadi kuy aji fàww maanaam kuy sax ba fàww waaw kon nit ki bu xamee ni yàlla miy dund yàlla moom moom comme dund dafa intrinsèque ci moom c'est-à-dire que mënul tàqalikoo ak moom donc moom dundam amul du jeex mukk mais ki bind mbindeef bi moom dañ ko bind mais dund intrinsèque ci moom parce que am na benn moment dundul woon donc day xam nekkoon kon dundam du sax mooy li ñu wax nag maanaam démontrer interprète ni dara day jeex mooy jëmmi démontrer ne am na fu mu tàmbalee. jëm démontrer ne dara am na fu mu tàmbalee mooy jëmmi di démontrer ne am mbir mi am na fu muy fu muy voilà loolu moom moo tax boroon bi subhaanahu wa taala de loolu moom mooy preuve yi nga xam te dañoo irréfutable ci xelu nit ci existence yu yàlla voilà. parce que li ñu xam mooy li fi nekk yépp am na lu ko fi def te xel mënul yanu dara existe te amul dara lu ko fi def xel moom mu mënu àttanul loolu en fait xel ci boppam ni ñu ko concevoir moo mënta concevoir ñu ne tapis bi existe na ba pare amul kenn ku ko defar waaw loolu maanaam la xel mënta àttan voilà beneen bi ci des mooy mooy kon àdduna bi bu fi exister c'est parce que am na ko ko fi def beneen bi ci des moom mooy le fait que euh, ki ki ko ki ko comme comme que maanaam comme que xam nañ ni te am nekk na ci temps donc ce qui veut dire que ni am na fu mu tàmbalee et que am na ku ko tàmbalee te kooku noonu kon moom nekkul ci temps loolu tamit beneen démonstration la ci existence yàlla xel mënul maanaam xel mënu koo weddi bu ko jéemoon sax du ko mën en fait loolu tax ñu naan nekku yàlla dafa war parce que xel ci boppam moo mënta xalaat ba génn le fait que ni yàlla amul maanaam génne lu naan yàlla amul xel mënu ko xalaat. en fait xanaa xelu yéeféer yi te en fait parce que tout simplement dañoo refuser bañ a gis dëgg loolu moom moo tax ñu ñuy jàpp ne yàlla amul moo tax d'ailleurs boobu rek da ngay gis non non non loolu maanaam da ngay gis dañuy refuser <laughs> bañ ne duñu xalaat ci affaire moomu te pourtant boo leen ci xalaat la way mais xoolal liggéey mais da gis automatiquement seen bopp yi da gis ñu commencé Euh, donc non non non man léegi déedéet nañ bàyyi voilà, da nga gis mais voilà parce que tout simplement ñoom loolu voilà. et que tamit beneen bi ci des moom euh, le fait que àdduna bi ni mu mel ak mbindeef ni ñu ak ni mu nekkee mooy wane ne euh, lii ki ko xam def la. voilà ku xam li def la parce que ah, sinon c'est trop parfait pour pour pour pour que ki ko def bañ xam ni mu def beneen bi ci des mooy ni mu mel tamit ak ni mu day wane ni ki ko def am na kàttan ci def ko parce que loolu tamit xel xel mënul yanu mënul yanu contraire yi ñett yi yépp xel mënu leen weddi xel mënul weddi ne tey fi mu toll bu ma ba defar tapis bi c'est parce que xam naa ko xam na mun naa ko ko surtout bu dee dama cee defar yu bari voilà beneen bi ci des mooy xel munu munul weddi ne am naa kàttan au moins bu ma permettre ma man koo def parce que su ma amul woon kàttan doole kàttan bi ma ko mën a defee du ma ko mën a def loolu tam xel munul munul weddi contraire boobu voilà ce qui kon xel yàlla liy tourner autour de mooy xel mënu ko weddi en fait waaw xel ko weddi euh, voilà d'ailleurs kon benn bi day wane ne mu ngi dund da yàlla day dund parce que sinon xel xel mënul yàlla ma defar dara fekk bi ma koy defar dund ma parce que xam naa loolu benn affaire la xel mënul weddi ne xam naa ko pour mu mun ko defar xel mënul weddi ne maanaam mënta démontrer maanaam lu xel réy réy réy mënta démontrer ne lii dama koo def te awma kàttanu defar ko léegi ñaar yooyu mooy xam-xam ak jëf yi boo leen amee dangay am dund alxayaatu dund gi danga koy am na tax parce que su doon loolu su doon ne comme tey yére bi ma sol ki ko ñëw xam nga man xaw ma kan la mais malgré li ma xamul kan la man leer na ma ne kii bi mu koy ñëw mi ngi doon dund pourquoi parce que euh, <laughs> bu dundul woon du ko du ko xam du ko man et su fekkoon fekkoonte ni possibilité boobu am na kon bu ma gisee nit yi dox ak di wax ak ne ma dikk mën naa dute ci ne mi ngi dundam déet voilà alors que normalement bu mu gisee mu animé di wax di def di dem ko dikk du ma dute ci ne kii il est en vie kon ci kaw loolu ci lañuy ñuy saxalee ba faw que yàlla moom naka jekk day dund te dundam amul fu mu tàmbalee am fu mu yom tamit et yàlla lépp lu aju ci moom intrinsèque ci moom du am fu mu tàmbalee te du am fu mu yem et que yi amuñu effet ci moom moo am effet ci mbindeef yi ñu mbindeef yi amuñu effet effet ci kon nag képp ku xam ne nag mbindeef moom ci boppam day nekk koo xam te ne saxul xayra abadi yi du ko sax alima day xam annahu nak lu wér bóor mooy laa bu damunul ñàkk min fanaa yi ci ci ci jeexam waxalaaki ak alko nit moom faw day alko maanaam mooy day jékki-jékki dootu exister périr nit day jeex wa in doonte yàgg na muddata diiru baqaay fi ak saxama mulki yi ak nguuram maanaam min tamit lu mu fi yàgg-yàgg diir durée bi mu fi dund fii ci kaw suuf lu mu yàgg-yàgg-yàgg day jekki-jekki doon existé voilà mooy comme lañ doon wax euh, jotaay bi weesu lu waay gëm-gëm gëm-gëm gëm sëriñam bu ne ko ah yow de comme sama taalibe ko te fi toll sa liggéey rafet na lool fi toll nag moom moom fi toll li ma lay garantir mooy doo dee mu wedd voilà te lu nit ñàkk ñàkk ñàkk xel boolewu ci le fait que jàpp ne moom daf fi sax loolu moom ñàkk foofu te it xam nañ ne dund gi yàlla moo koy joxe te moo koy yëkkati tamit loolu tamit du nit ñàkk xel xam na loolu voilà même daf bi sax gis nga daf bi dafa ñëw frère am frère am génn àdduna quoi gars yi ñëw feebar bi la kenn ku nekk <laughs> kii naan feebar sàngam la kii naan ah waaye est-ce du dañ ko def lii est-ce kii di moom mu ñëw tiim ko daal di xool ko yëngatuwul def dara bu ne ah, kii wóolu ba ci yàlla de. nii ma ko gisee nii duru naan bi def de ah, eh, ah parce que gis na ni eh, voilà loolu moom waaw ah, bu lu cee wóolu yàlla loolu moom hmm, waaw dégg mu ne yox kaa nettali nañ an al ma'mun ne ko al ma'mun euh, xalifa benn xalifa la ci waaw lamma bi nga xam ne xarubat jege na wafaatuhu génn àddunaam dégg nga farasha dafa tëdd ci ar ci euh, suuf si maanaam mooy poussière bi wakaanate mu nekkoon yatamarrahu muy xalangu alayhi ci moom waaw ah, muy xalangu ci suuf si wa yaquulu muy wax naan yaa man ay eh, yow yàlla mi nga xam yaa yow yàlla mi nga xam ne man mi nga xamante ne laa yazuulu du jeex mulkuhum nguuram irham yërëmal man ki nga xam ne nag xat dëgg dëgg zaala jeex na mulkuhum nguuram moom buur la woon al-Maamun hmm? kon moom loolu la doon wax maanaam loolu waaw bi mu demee bay waaj génn àdduna daal daa tëdd ci suuf si maanaam poussière bi di xalangu nan yàlla yow mi nga xamantene sa nguur du jeex yeureumal ki nga xamantene mo moom nguuram day jeex yàlla ko yàlla yërëm bal li fi nek moy man kep ko xamne ani ma xamna na annahu naka al baqi aji sax alladhi bi nga xam la yazuru du jeex maanaam ne xam na yàlla aji sax jo xamantene du jeex alima dana xam an na fi hein ne nekk na ci khalafan ak wuutu kuutuwaay min kulli talafin ci lépp loo xamante ne lu rëcc la lu lu fàddu la maanaam lépp lu fàddu rek am na lu koy remplacer tey fi mu buñ kër gi fii nii fii ku fi dëkk tamit dalay leer ni maanaam moment bi ngay dugg di dëkk si ci ngay xamee ni dina am moment boo xam ne da génn boo déewul voilà te ci ngay xamee ni tamit am na moment bu nga xamante ne même boo deewee da ngay da ngay toxu maanaam ñaari possibilité yooyu moo am maanaam moment bi ngay dëkk si ci ngay comprendre que ni bu dee boroom xel nga ci ngay comprendre que ni fii de maa ngi fi dëkk si lii commencement la mais dina am fin et bu ma fi jógee bu dee kër gi mi ngi fi ba tey keneen mooy ñëw dëkk ko voilà yàlla noonu lay doxal ay mbirum ci lépp. li wolof di wax lu teug tass waaw lu teug rek tass lu xew xew mo ko xiss na xew ñu ne nangama xew léegi mooy alamon moy dana xew voilà tout simplement voilà li alxuraan wa tilkal ayyam nu dawilu ha bis nas ngoog ñu koy wër lo ci biir nit ñi lan la potu ndaa la ku naan dangay jox sa borom mu naan loolu yàlla noonu la bindee mbir mi yàlla noonu la doxalee affaire yi voilà loolu coobare yàlla la moo doxalee noonu mbir mi voilà subhaanahu wa taala et donc euh, même réew yi noonu la yàlla doxale seeni mbir réew mu ne bu nekkee ci apogée nekk ki yilif àdduna bi day affaire bi tourner dem ci civilisation yi pour xol dans l'histoire civilisation yi ni du tout di tuggé ci monde bi dem ci hein, antique après nous Égypte Égypte antique hein, voilà diggante perse yi ak romains moy deux deux empires byzantin empire empire romain empire perse voilà ñëw ci arab voilà grec yi et cetera non lañ ko xool day juk après day ñew muy ñew day ñew instant bi ni voilà nekkoon na at yi weesu ak yi weesu moy ñun bi ñu nekkee xale hmm? boobu màgg voilà euh, dese woon nañ xamé sax hmm. euh, ñaar bloc yi voilà union soviétique ak États-Unis instant bii bon États-Unis la union européenne bon Russie pertagul ba légui ndax mi ngi sauver la face voilà États-Unis instant bii ren en tout cas hégémonie économique bi perte voilà légui Chine mo jël voilà de pour pour euh, ñaata depuis cent cinquante ans cent cinquante ans de règne économique dans le monde entier voilà borom subhaanahu wa fii la ko bëggee woon mu yem fi voilà léegi Chine ñëw na ci kaw première puissance mondiale en tout cas économiquement militairement non mais économiquement oui et que après lenn maanaam àdduna yàlla noonu la ko bëggee day tourner bul la buy tourner. mu ne wa tilkal ayyaamu bis yaa ngoog lu daawiluhaa dañ koy wër wërale gis nga même baatu daw la ñeew daw la réew baat boobu foofu la jóge voilà kay laa yakuna duulatan baynal aghniyaa minkum alal ji ba nga nekk loo xamante ne rek day nekk ci diggante yi way woomali ci yéen yàlla bëggul loolu dafa bëgg affaire yi di wër <coughs> voilà moom rek la nguuram di def di sax borom bi subhaanahu wa kon ku xam réalité yi ni yàlla moom rek mooy kii dund dund ko sax day comprendre les réalités yi yépp aussi maanaam te xolam day aju ci toutes ci réalités yii nii yépp ci ne nii mbir mi nii la ko yàlla bëgg te nii lay demee mm-hmm. ay mbir la yoo xamante ne kenn du ko dindi kenn mënu ko dindi voilà boo xoolee ñun suñu réew yi noonu la demee tamit da gis bu ñu toolee bu ñu teg teg tegee un deux siècles rek juste avant dangay gis ne ceddo yi ñoo fa amoon doole waaw ceddo yi ak euh, yenn animiste yi fa ñoo fa amoon doole voilà léegi fi mu tubaab bi colon bi ñëw jël pouvoir bi bon maintenant après nga gis affaire yi diggante colon kii euh, nu tudd ceddo yi ak sëriñ si léegi nii sëriñ si rekk fi ne yor doole gi mais boo gisee ni mbir mi di doxee nii ku ko gis xam na ni sëriñ si ñu ngi perte seen pouvoir bi

léegi yeneen i dëkk ngay dégg Dakar Ndar yooyu ngi voilà Ndar léegi perte na capital am dem na voilà et cetera maanaam tey ci gàttal daal loolu ku xool histoire ni yàlla di doxale mbir yi day gis ne bul la buy wël buy wël yàlla moo ko bëggee noonu <coughs> te loolu <coughs> ku xam ku xam ne ne ne dara saxul rek ku xam ne dara saxul rek day xam réalité day xam mbir moomu bal li fi nekk alima day xam annahu ni li wér wóor mooy laa yasilu ne du jokk ilaa mawlaahu jëm ci boromam illaa lu dul illaa ah, lu dul baada mawtihi ginnaaw deewam istaaqa day tar ak xërëm xër ilaa wafaatihi ci ak faatoom ku xam ne bala ngaa yegg ci yàlla jokk ci yàlla dëgg dëgg dëgg foog nga foog dee da daal di xër ci faatu voilà <laughs> voilà man ahabba liqaa allah ahabba ahabba allahu liqaahu ku bëgg yàlla dajeek yow rek ku yàlla day yàlla day sopp mu dajeek yow voilà moo tax nga gis kii di mébét mais Euh, am na xaalis bi wax ne laa tamannawul mawt bu leen mébét mukk dee daganut en fait nit ki di mébét dee mais loolu mooy situation bi normal voilà mais fii nii li ñuy wax en fait dee comme ni ñu ko gisee woon dee ñaari façon la am na ñoo xamante ne moment bi ñuy dee ci la seen bakkan di jóge di génne donc seen ruux dem ci seen borom. seen ruux dem ci seen borom ndax bakkan bi génn na jub na donc ruux bi day libéré wu ah euh, après yaram bi moom day day dañ koy suul xel bi ak xol bi noonu day dee malaaka bakkan bi la ñuy jël nëb ko mais ruux moom ci yàlla dellu day dellu ci boromam comme ni nga xamante ne noonu la fa foofu la jóge woon te naka jekk na ne mais Euh, nit ki day mën na am benn dee bu muy dee fii ci kaw suuf loola tax ñu wax ne ku deewul ñaari yoon du àgg ci li ñuy wax royaume des ah foog nga wala ku judduwaatul ku judduwaatul ñaari yoon maanaam kon judduwaat bi mooy da nga dee judduwaat loolu foog nga judduwaat dee boobu foog judduwaat voilà donc dee boobu day exister aussi maanaam dee bi nga xamante ne nit ki. Euh, day jël bakkanam soppi ko ruh ce qui fait que bakkan bi daf fiy jóge malaakal mawtu bu ñëw du am lu muy jël ndax waji bakkan bi nekk na ruh léegi tout simplement voilà donc lool taw benen façon dee la mais buy dafa gën a radical dafa gëna yok yokk dafa gëna radical pour nit ki dajé borom waaw pour nit ki jox ci borom subhanahu wa taala mu loolu moom moo tax ñi mel ñi dem ba mel noonu ñooñu dootu ñooñu duñu duñu en fait ñooñu duñu duñu dee looloo tax ñuy wax ne ñooñu deewuñu voilà ci sens boobu ci la ñuy comprendre ngay gis nitu yàlla bu ne par exemple man bu ñëpp dee dee man duma dee hmm. maanaam dee boobu la ci jublu mais tekkiwul dee bi ñëpp xam hmm. voilà voilà tekkiwul loolu mais dee boobu nga xamante ne dee boobu tamit du exclusivité benn nit wala ñaar wala ñett nit wala ñeent mais benn catégorie la c'est-à-dire que degré niveau spirituel la ku ca yegg doo dee tout simplement mooy waa ahlul itlaq ku yegg seen niveau boobu dootoo dee parce que en fait euh, da ngay jógee ci sa borom dem ci sa borom kese parce que ku mel noonu ci yàlla rek lay ne naka jekk maanaam moom du tuxu ci yàlla fu mu toll mi ngeeg yàlla en fait kooku du déménager en xam nga kiy déménager mooy ki nga xamante ne place bu mu nekk ak place ba mu jëm du benn mais comme kii moom amul place bu mu nekkoon lu dul ci yàlla voilà bu bu demee en fait demul ci yàlla la ne fa la moom fa la mësale làqu naa làqu gi ci bët lay doon mais dans sa fi mu mësa ne fa la mësa ne toxu musul toxu voilà kooku noonu la mel dégg <coughs> voilà hmm? Hmm. Allah moo tax xiila waxeem na li baadihim ñel lenn ci ñoom maanaam ñenn ci nitu yàlla yi ne inna duniyaa lu wér wër mooy àdduna laatu saaw yi nee na yéemuwul maal mawti ànd ak dee chey an dara maanaam euh, jarul dara dal àdduna jarul dara ak dee fa qaala mu ne bal li fi nekk àdduniyaa àdduna law lam yekkun bu nekkul woon almawtu dee maa kaanat du nekk tusaaw yi di yem mook sey an dara maanaam di jar dara maanaam àdduna ak dee yemuñu kon dañu ko àdduna daal mook dee daal yemuñu ko maanaam euh, dans le sens que àdduna moo gën a moo ëpp solo maanaam parce que bu dul woon àdduna euh, maanaam maanaam dee ku ne xam na ni nit ki bu deewee après doot fu nekkati voilà <laughs> voilà yi mu daan am ak yi mu def ak yooyu doot ko fi mën moo tax d'ailleurs bu nit ki xësee ba dee rek da ngay gis maanaam benn affaire rek la ñuy am mooy nañ ko suul ak yooyu wéy de gis nga gaa yi ñu gaa yi gaa yi waaj yi gaa yi ñu àjj gis nga fi mu bu ñu leen mënoon dellu si waat noonu la ñuy def mais xës nañ ba dee maanaam fi mu toll tuñ leen ci dara mais boolee tuñ leen ci benn projet parce que dee nañ voilà dee moom noonu lay def moom. bu xësee ba ñëw moom moom moom moom loo amoon yaakaar ci moom ak loo daan sukkandikoo ci moom xës na dee moom moment boobu ngay fàtte complètement ci moom jàpp na fi mu toll moom comme nekkatu fi bon man <laughs> il me faut une autre solution waa dee na voilà léegi ni ki loolu ki nga xamante ne moom mooy kan euh, euh, léegi moom nag dafa ne noonu en àdduna ci boppam bu dul woon dee àdduna ci boppam moo dul jar dara voilà xoolal loolu moom moo tax yéeféer bi mënul comprendre loolu xam nga yéeféer bi li mënta comprendre en moo tax mu naan la vie n'a pas de sens àdduna bi amul sens loolu tax yéeféer bi di ko wax parce que moom dafa jàpp ne euh, après de comme dara du am du la vie de sens ay problème kese hein ay ki euh, voilà donc amul sens alors que mom khalatul ne mom lu c'est-à-dire que li yéeme moy ak àdduna bi yëpp yi mu gis te lepp lu nek di am lu muy symboliser lepp lu ne am lu muy wané mais mom mu japp né ba tay que ni en fait dara amul sens wa loolu moy wane ne manam bopp bi du khalat xam nga loolu tax yéeféer bopp en fait yéeféer yéeféer du khalat ah comme li am wax daal daalika benn qawmun c'est parce que ay nit la ñu dul khalat en fait intelligent wuñu en fait maanaam mën nañu am xam-xam nag yii parce que dañ koy jàng formation la nangam mais en réalité bu dee wàllum intelligence question moom intelligent wu wala boog seen intelligence dafa limité li nga xam ne moom da leen di empêcher pour ñuy réfléchir plus loin ci mbir yi ëpp solo voilà ci mbir yi ëpp solo voilà <coughs> te pourtant mënul ne. mais raisonnement bi bii mooy nar a def nii gis nga ni mu simple mais mais yéefir xelam mënu koo àttan xelam mënu cee dem ak ni muy simple simple maanaam mënul ne mais mais est-ce que duñu jàpp ne comme mbir yi fi xew yëpp ak yi fi am yëpp benn bu ci nekk dafa am valeur dafa am solo dafa am sens boppam. kon ce qui veut que la vie de manière globale dafa am sens parce que détail bu ne dafa am sens kon de manière globale vie bi dafa am sens et buñu jappé né dafa am sens kon ñu jàpp né gannaaw dé amna luy xew parce que su gannaaw dé amul woon dara luy xew ah kon vie bi moo am sens mais comme man xamna né amna sens kon gannaaw dé amna na lu fay xew parce que mom li tax mo né vie bi amul sens moy avec tout ça après ñu dé lay jeex alors que moom mënon na ne mais non légui même bu fekkante ne xelam ko ci ne mais mu ne mais on suppose que ni am sens sens kon gannaaw et que gannaaw comme luy xew vie mais mais mais raisonnement ak ni mu simple rek <coughs> comprendre et que tout simplement ben raisonnement Moi, bu bandi balam puis dóor boppam dee maanaam ñii ñëpp dee nañ moom it rey na boppam dee na c'est-à-dire que bu fekkee ne vie bi amul sens am na sens bu vie vie bi amee sens moom moom possibilité boobu te xam nga loolu moo ëpp loole ko mu bañ am sens possibilité boobu bu amee rek mooy bàmmeel faw àllaaxira faw mu am dara foog foog ñu dem juger ko dans parce que dans le cas contraire en fait gars yi ñi mu rey ñoom ñooy perte après amul dara lu ko ci justice ne sera pas rendue parce que rey na boppam après mais comme après léegi dund bi dafa am sens buñ deewee ñu àtte kenn ku ci nekk ñu delloo la àq bi nga moom voilà loolu mooy yanu et que contraire bi yanuwul mais li muy simple simple gis nga raisonnement bi simple day japp non moom xelam mënut a en fait nous koo comprendre voilà mënu ko comprendre voilà tay dafa am benn mbok talib mo moo doon ci en fait dafa def commentaire ci li Charlie Hebdo le fait que ñuy bindat ne maanaam seen caricature une respecté wuñ conscience musulmane. yi nga a ñom ñoo doon compatir ak même Ahmed bi policier bi. musulman la ak sa famille respecté wuñu conscience am na man voilà et cetera mais ñoom ñi ngi wëlbatiku ne dañuy dañuy génn waat caricature et cetera maanaam euh, loolu euh, am benn ku ko doon form benn formateur um la bind kii euh, naan ko woy maa ngi inquiété wu ci damay triste quoi bu ma lay lire ndax nangam euh, vraiment parce que dëkk bi euh, république la boo xamante ne mënuñu ko diviser voilà et maanaam di indigné aussi moom tamit ci façon bi et que vraiment je suis triste quoi parce que quoi. Euh, que ñi am nañ droit bi quand même bàyyi leen maanaam te pourtant li mu wax te simple la de <laughs> mais mais mais non munuñu mu wax ma mu may wax naan ma mais gis nga sa kii sama formateur ma ne ko non il faut nga comprendre benn affaire ñun ak ñoom ni ñuy xalaate lu benn ñoom duñ xalaat en fait alxuraan dëgg la wallaahi alxuraan li mu wax dëgg la yéeféer duñ xalaat ne de li ñuy xalaat mooy comme ni animaux yi xalaat moo tax mu ne ulaa'ika kal an'aami bal hum adall ulaa'ika humul ghaafiluuna ñooñu comme njaay àll yi lañ comme comme jur yi jur gi lañ d'ailleurs ñoom ñoo gën a sànku ñoom ñoo yëg parce que mooy dinañ xalaat lii de yéwénal seen dox seen àdduna comme jur gi xam nga jur gi li muy xalaat mooy lan nu muy def ba lekk nu muy def ba naan fan lay tëdd ah? Euh, euh, ak nu muy sëyee ak nan lay def ba doomam ji e, e, e, yeneen jur yi duñ ko du dugg ci danger bu demee bu gisee oto bu waree jàll taxaw pour oto bañ ko fiir wala mu tëb daw gaaw voilà bu gisee danger daw waaw ak yu mel noonu loolu yooyu façon xalaat réflexion mais en noonu rek lañuy xalaate aussi maanaam yéeféer seen xalaat yépp même bu ñu defaree avion sax juste pour pour satisfaire yu mel la ko parce que non il faut une différencier entre ñaari façon intelligence façon intelligence duñ intelligence bi ni bi dafa dafa lumière voilà buy ce ci nit pour mu pour xel mi fi da euh, supporter imagine xoolal xoolal li ni mu maanaam seen xel yanu na ne fi mu toll day kenn warta wax dara colon juif yi wala kenn warta caricaturer yahudi mais yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom mën nit na koo caricaturer mais loolu liberté la ko maanaam fi mu maanaam le le simple fait que ñu teg ñaari mbir yi côte à gis ne ñaari benn la maanaam au minimum maanaam au minimum ah ñu xam nañ ne du benn mais au minimum mu mën a jàpp ne benn la loolu rek seen xel mënu koo yanu maanaam loolu donc seen xel mënta comprendre que ni <coughs> ah, ah, que ni façon caricature bi ak façon bi benn la loolu donc te te te loolu dafa c'est-à-dire que tellement que évident xaw ma sax ku koy expliquer nit nan la ku koy expliquer parce que tellement dafa évident <coughs> <coughs> mais seen xel c'est pas parce que bëgguñu ko ah non seen xel moo ko manul moo ko àttanul. c'est xel moo muusul muusaay bu intelligence bu yegg ci ñu wax ko mën comprendre loolu voilà ànd ak ni fi mu toll nangu tay kenn wax par exemple président de la république kenn wax ci mom lu ñaw parce que dañ na institution la république non mais yent yàlla Muhammad moom sallallahu alayhi wasallam non mais grave mais où le problème c'est la liberté d'expression et pourtant maanaam fi tolu la Marseillaise duñu nangu kenn siffler ko mais non mais sérieux c'est pas parce que bëgguñu kii de non parce que gars yu bari loolu lañuy foog que ni mauvaise foi la non non non non seen xel moo àttanul loolu maanaam dañoo mën seen moo loolu loolu ah, tax maanaam c'est que ah, mais loolu nan la ko nit di xamee au moment où nekkul ci xelu nit ñi ci alxuraan la koy xamee alxuraan moo koy wax. moo naan ko gars yi moo ne la gars yi duñ xalaat en yow comprendre ni ñii mënuñu en fait mënuñu gisoo zaalika bi annahum qawmun laa yaqiluun zaalika bi annahum qawmun laa yafqahuun gis mu ne ba pare mënuñu am compréhension bu xóot c'est-à-dire bu domaine bi commencé xóot rek dootuñu comprendre c'est-à-dire que parce que seen xol yàlla ubbiwu ko ubbi ñuy mën a comprendre yenn mbir yi nga xam ne moo tax nga gis nag ci ngay comprendre que ni jullit ni euh niveau solo niveau spirituel am lu nek rek dévoilement la lu nek kashfu la parce que voile la rek bu yalla yikiti ci moom voilà solo ni ngay arriver comprendre rek fofu le ce sa niveau leer bu nek ce dënn nekk ak compréhension voilà voilà mais mais yéefar du comprendre loolu en fait mënu ko mënu ko voilà moo tax ngay gis par exemple moom mënu comprendre que ni dee après dee dara dana xew waaw et puis bi ci gën a garaaw mooy benn façon bi quoi mooy athée bi ko par exemple moom mënta comprendre que ni yàlla am na ak te yàlla am na ak démonstration ak ni mu simple maanaam démonstration <laughs> hein? parce que mbindeef maanaam lu mu ma lu ci ne dafa soxla ñu def ko fi voilà lu fi lu yëngu lu ne comme euh, loolu am na jotaay yoo xam ci loolu rek lañ nekkoon lu yëngu mm. voilà ne existence bi yàlla à travers ñaari proverbe wolof lu yëngu lu ne lu ko yëngu la ko upp doole ak bala nga ne nam neef mm. voilà donc démo mais gis nga démonstration boobu ak ni mu simple wallaahi yéefir mënuñu ko c'est en fait mënuñu ko seen image seen xel mënul yanu këri lu yëngu ne la ko yëngu la ko ëpp doon te pourtant ñoom da gis ñu koy jàngal naa ci principe fondamental de la mécanique de dynamique naa ko du këri lu yëngu ne la ko yëngu ko ëpp doon mooy principe fondamental de dynamique loolu la l'ensemble des forces soit dañuy annulé wu dañ dañ dañ dañ ëpp doole affaire li ñuy app ci li ñuy appliqué wu ba retenir ko wala boog mu am force yoo xamante ne bi ñu boolee dafa am lu ko lu koy poussé mu dem ci benn côté wala muy yëngatu selon benn trajectoire loolu pourtant ñoom xam nañ ko mais man ñu cay jëlee ni kon yàlla am na <laughs> non mais sérieux mënuñu ci xamé né yalla amna da ngay gis kuy jangare ay année principe bobu té mënu ci xamé né yalla amna voilà dañu yëngu lu ne la ko yëngal ëpp doole voilà bu fekkente ne àdduna bi yëpp mi ngi fi nek tout l'univers est en mouvement en expansion mais appliquer le principe bobu lu yëngu lu ne la ko yëngal ko ëpp doole pourquoi yëpp nek fi mel non c'est parce que tout simplement il y a une force extérieure boo xamante ne moo nekk ci biti di ko yëngal mais non mais mënuñu xalaat loolu non mais c'est vrai il faut pas croire que ni gars dañ bëggul xam ne déedéet dañ ko manul gis nga moo tax alxuraan ni mu ma xatamallahu ala qulubi gis nga yàlla moo tëj seen xol voilà dégg nga la wax nañ ne almawtu dee jisrun ab pont la pont la yuusi pont nan lañ koy wax ci wolof wala wolof yi xamul <laughs> voilà yuusilu buy jokkale alxabiba soppe bi ilal xabib bi jëm ci ci soppeem maanaam buy tax ñaari soppe yi walla benn soppe di dee maanaam dee mooy pont bi nga xam ne mooy dox digg nit ki mën a dem nag taseeg boromam maanaam di soppeem voilà intaha foofu la wax jàmm wa maanaa maanaa alqayyum léegi xam nga ñëw nañ wax na alxayu loolu wax nañ ko léegi ñu dugg ci beneen tur mooy alqayyum alxayu nag comme gis nañ ko mooy tur bi nga xam ne xam nga bi ñu boo seetloo boo seetloo eh, da gis xam-xam nam nam ni Eh, maanaam ak tur yu bari tur yi presque maanaam meloy borom bi subhaanahu wa taala dafa aju ci dunduk yàlla parce que ki dund mooy man loolu d'ailleurs ki dund lañ mën a askanale dara ku dundul mënuñu ko askanal dara ki xës ba dee mënuñu ne kii dee na ñu ne waaw néew baa ngi nii ñu ne waaw mu ne mais eh, tey par exemple moo raxas kër gi loolu ku ko wax dañuy jàpp ne dangaa dof sam xel neexut ah hmm. parce que dee ba pare voilà loolu loolu la ko loolu loolu la voilà borom bi nag subhaanahu dafay dund dundam moom moom moo tax yi ci des possible voilà kon muy al léegi nag mu des alqayyum mooy ki taxaw jéggi dayoo ci taxaw mbindeef yëpp maanaam ginnaaw ba boppam moom waxaalawuñ ko maanaam moo taxawu mbindeef yëpp kooku mooy alqayyum moom lay wax ni huwa mooy alqaa'imu aji taxaw bi nafsihi ci boppam maanaam mooy euh, lii dafa am solo le fait que yàlla taxaw ci boppam parce que euh, manam par lui-même voilà lolou tek par lui-même il subsiste par lui-même mindee fi munuñu lol ku dul yàlla yalla, dul yàlla subsister par toi-même mënu ne c'est impossible ah lu parce que soxla nga espace boo ne xam nga tey fi mu toll suñu xalaatee ne suñ ne dara existe na lu mu mën a doona léegi ñu supposé ne téléphone bi existe na existence téléphone bi dafay am yu muy impliqué yoo xamante ni obligatoirement xam nga fi mu toll moom soxlawul di lekk ak naan ak yooyu yu soxlawu ko ak a mais am na loo xam ne moom obligé daf koy soxla. mooy benn volume bu muy occuper ci espace bi loolu moom munoo imaginer téléphone bi te imaginer wàllu au para au préalable volume bi mu war a occuper ci espace ba parce que su ko occupé wul rek du mun exister donc il ne subsiste pas par lui-même <coughs> hein? voilà et que loolu une démonstration vous buy il y yalla amna et que yalla mi def lépp <laughs> voilà une <laughs> démonstration la parce que le fait que l'univers bi univers bi mën fi c'est parce que d'abord yalla dafa mettre en place espace bi mu war man occuper volume bi muy occuper d'abord avant mon muy existe. et que donc ce qui fait que l'univers univers bi amna commencement parce que su amul woon commencement espace bobu non, il faut pam espace parce que xam nañ ni espace bobu dafa créé wu obligé day créé espace boobu espace bi mënu fee rek par par par par essence mënu fe nek par essence parce que espace bi lu tax mënu fe nek par essence parce que dafa am volume te lépp lu am volume c'est parce que dafa composé wu on est d'accord am volume dafa composé wu voilà xam nañ ni euh, volume quelle que soit forme bi dafa am ay ay coordonnées ay kii donc dafa composé wu et que li mu composé wu lépp lu composé wu dafa am d'abord yu dajaloo pour mu mën a composé wu et que donc au préalable c'est-à-dire que avant élément yi tax mu composé wu dajaloo kon existé gul woon kon déjà rek ci dañu xam ne espace bi dafa am commencement et que espace bi comme dafa am commencement da univers bi nekk ci espace bi maanaam lu nekk noonu la ko yàlla defal daf daf koy wutal espace bi muy ne ci univers bi gis nga fi mu toll bu ñu demoon ba nit ñi xajatuñ fi fi mu toll euh, moo tax gis nga tey sa poche boo ci dugalee dara wala sa saak nga dugal ci dugal ci dugal pour dara nekk ci il faut mu xaj maanaam il faut mu am benn espace bu mu xaj nga mën ko caa dugal voilà noonu la tamit lépp lu existe fii c'est parce que dafa am espace bu ko yàlla wutal ci ci ci ci ci ci ci voilà maanaam maanaam volume bu muy occuper ci espace d'abord mu do fa manane parce que sinon du fi donc ce qui veut dire que subsister par mon moom kese fa subsister par ku subsister ku fi exister voilà kenn ku ci nek lenn mu ne la mel fim mu toll borom bi bu ne la woon léegi génnal sama espace Et ca sort sort de mon espace <laughs> maanaam fi mu toll dootu mën a loolu tax borom subhaanahu wa ta'aala yow ci sa bopp boo ko ñaanoon mu génn la ci espace bi sax day bañ soo ko ñaanoon bul mu wërsëgal sax day bañ wala léegi day bañ ah <laughs> voilà voilà ah et cetera donc euh, lépp lu dul yàlla nag am na lu mu soxla xam nga voilà c'est pas parce que nit ñi soxlawuñu lekk ak naan rek que soxlawuñu yàlla déedéet. maintenant mu dess yeneen yi nga xam ne ay fonctionnalité la et cetera loi yi yàlla tek pour yooyu meuna nek et cetera yépp ya kon daf leen dañ ko soxla mais yalla kese moy ki nga xam ne mom moom tundum soxlawul dara mais dara dara la da fay subsister par lui-même par son essence par lui-même muy subsister Allah voilà loolu dafa am solo ci qayyum baat boobu turu alqayyum partie boobu nga xam ne mooy dafa moom ci boppam moo fi nekkal boppam soxlawul leneen pour man fee ne alors que ñun fi mu toll même ku ne man soxlaalu ma kenn dara même ku ko wax waxul dëgg parce que soxlaal na au moins ñu mën ko tegal ñu mën ko espace soxlaal na temps temps bi yàlla moo créé aussi danga ko soxla pour mën a def yi ngay war a def parce que sinon boo munoo def dara te defoo ko ci biir temps munoo ko ci biir espace air bi ngay nooyi da nga ko soxla ndox mi ngay naan ak yi boo lekkut naanoo da ngay da ngay wekkee ko voilà et cetera donc yow même rien pour loolu soxlaal nga yàlla bon et puis et soxlaal nga mu défendre la ci fléau yi wala yi la war a mën a dal ci yépp nag sanitaire intellectuel euh, euh, ci côté am-am social politique économique et cetera maanaam ci domaine yépp soxla nga mu défendre la donc yow moom dafay subsister daf lay taxaw da lay taxaw loolu mooy al gis nga taxaw da nga soxla tamit soxla nga yeneen i mbir yoo xamante ne obligé yàlla da nga soxla ci moom. kon loolu mënoo koo bañ a soxla ci yàlla voilà yooyu c'est une infinité de choses mais aussi yàlla dafa def nit ki pour mu wan ko ne moom soxlaalul leneen moo tax gisoo gisoo yàlla yi mu koy teg pour muy wane ne soxla na leneen mooy yàlla da koy teg parce que yooyu bu ko yàlla dul woon teg ay ay feebar ay xiif ay mar ay par exemple di soxla di dem di di dem wan ak ak yu mel noonu di ak dee gis nga fi mu bu dul nit yooyu yëpp wóor na ko ne yooyu yëpp du ko fekk du ko ci dal bu ñu toogee tuuti mu jàpp ne mooy yàlla <laughs> voilà <laughs> bu ñuy toog tuuti rek mu commencé jàpp ne mooy yàlla voilà mais yàlla de temps en teg ko yenn yooyu wan ko ne ko ah déedéet doo yàlla de ànd ak lu mu ko defal yëpp lu mu ko may yëpp mooy waaw mu koy wan loolu bon loolu mooy benn affaire mais beneen affaire moom mooy le fait que bu yàlla dafa bind nit ñi bindee fi ñuy dund en entité en entité globale maanaam soit en société wala en groupe wala yu mel noonu waaw donc du soxla ñoom kese kese kese ñu ne moom kese déedéet même ñi nga xamante ne benn unicellulaire lañ yàlla ñu mbir mi nga xam ne benn cellule kese nag dañuy soxla environnement bu ñuy évoluer pour mën di voilà di di dundee lii di defee maanaam donc borom bi noonu la bindee àdduna bi noonu la bindee lépp ngir wane ne moom kese mooy nga xam ne mooy taxaw par moom taxaw par moom subsiste par lui-même bu fi dara nekkuloon muy nekk li mu daan nekk voilà dégg nga mooy aji taxaw li xayrihi ñeel keneen ku moom waaw loolu benn maanaa la ci alqayum aw wala boog ñu firee ko neneen mooy ad daa imu aji sax albaaqi hmm, daa im muy aju wéy ad daa albaaqi di aji sax donc daa im mooy gis nga comme daa iman voilà voilà donc perpétuité qui est perpétuelle c'est la perpétuité al baqa'u c'est la permanence al abad moy l'éternité voilà donc yoy ay baat la yu jege war ko mais duñ ben voilà donc daiman daa nga ad daimu mooy aji wi al baqi moy aji sax voilà donc daa im day day day day teg kon maanaam wéy gi mooy day principe de continuité la maanaam loo xam ne day continue yi mooy sax permanence voilà mooy amul dog-dog voilà fii la nekk rek mais pour l'éternité donc fa mu nekk takiidan bi luy feddali lil xayyi ñeer alxayyi loolu tax kon da ne alxayyul qayyum soo jàppee ne alqayyum mooy ki nga xamante ne mooy dafa sax sax goo xamante ne dafay wéy maanaam boobaa day feddale rek baatu alxayu kii dund dund bu sax waqiila wax ne nañ ne mubaalaxatul ak baat la buy wane jéggi dayo fii qiyaam yi ci taxawu gi muy taxaw bi tadbiir yi ci soppandiku xalqi yi la ak ay mbindeefam xalqi ay mbindeefam maanaam kon taxaw gi mu taxaw jéggi daye gi mu taxaw maanaam kon mubaalaxa la mooy kon mooy ki taxaw boppam taxaw mboolem mu ndefi mubaalaxa moom mooy forme euh, mooy exagération donc c'est une forme buy wane exagération ni muy taxawoo mooy extrême ni muy taxawoo mboole mbindeefam yi maanaam voilà waxusuuli ak amuk al istighnaa woomal bii ci moom an kulli ma ci lépp loo xam ne siwaahu ku dul moom la lépp lu dul yàlla rek yàlla dafa woomal ci loola maam doyloo na boppam sëkk alqaa'imu moom yàlla mi nga xam ne mooy taxaw ala kulli nafsin ci bépp bakkan bi ma kasabat ci li nga xamante ne moom lay fàggu <coughs> bakkan bu nekk yàlla mooy koy taxaw ci li muy fàggu maanaam ci li muy acquérir toutes les acquisitions yàlla moo ko ci taxaw